mu ne liggéey bi lépp dafa dëppoo ak ni mu ci ñu ni mu ko taamoo. mu ne dafa bokk ci li nga jëkk wax muy jàppale daara yi. boroom dafa wax ne tarab bi maskana taallumi la. ak fikratu ak maska wa maskan isaadi ak tasir ak tartim maskanu xuróoji min sulam min wala min sulam mais day mel ni rek li borom juuti ci barab bi yëpp rek moom lañ doon waxtaane nee na li jëm ci wàllu assainissement bi suñu jëwri ji jiitu bi muy doog a nekk jëwriñ dafa demoon di ko siyaare nee na du sori fi waxtu bii ci jamono mu ne daal na ko seetle warugar yi nga xam ne dëkk bi aajo woon na mu ne xelam na yar mu ne ko dëkk bi de bu nawet dikkee. bu nu xayma woon ci juróom benn mbedd. ñett yëpp day sax. nee na fekk na nag booba moom ma ngaa ko dégg ci foo xam ne. mu daal wax ne loolu day musta waaw. nee na mu ne teg déglu ko. mu ne loolu amoon na. warteefu état la. waaw mu ne loolu warteefu état la. te mën na koo xam nga ne état bi mënu ko sax waaye yow mën nga ko. waaw. réew yi nga xam ne dañoo néew doole ci développé wul mënuñu ko. mu ne ko nag waaye yow mën nga ko. su mu ne ko misaal. mu ne ko ci misaal su fekkoon ne dañoo song benn quartier. mu ne benn quartier boobu moom lañ fas yéene jiital ci liggéeyub assainissement bi. nga ànd ko ak njaboot gépp su booba daanoo ñu jëlaat beneen carte nee na kon day mujj lépp noppi rek mais <laughs> daal loolu ba amul benn commentaire bu mu ci tegaat wala commentaire bu mu